di baru balu àq di leen baal àq di ñaan yàlla mu baal ñàq ñu toog bi jaahi sallallahu alayhi Wasallam sallam ngi leen di dénk ay baat yoo xam mu ngi bëgg bàyyi ko ci suma xol te it di ñaan yàlla mu déggloo ñu ko xamloo ñu ko jëfeloo ñu ko ci dara yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam mooy lan mooy ñun islaam la ñu am islaam bi ñu am nañ ko jàppee suñ fukki loxo waxtu la mooy jàpp bu dëgër rek suñ ko jàppee lépp lu ñu bëgg ci wàllu àddina ak wala wala xerat nañu yàlla danañu ko may su fekkee sàggane nañ islaam nag lépp di daw jëm ci àddina la ñuy dawal ci àddina danañu raw te islaam bi nga xam ne moo nekk suñu cër raw ñu loolu yal nañ ci yàlla musal kon nañ jàpp islaam bi ni ñu koy jàppee mooy santaane yàlla yàlla moo wax alquran al karim jaarale ko suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi jotal ko xeet bi yépp ñépp war ko déglu xam ko lépp lu ñuy jëriñ fii ci àddina ak ëllëg ci àllaaxira mu ci alquran al karim ak waxi yonent bi alayhi salaatu kon nañ xool alquran jéem koo jëfandikoo ay ateem jéem koy xatte hoo ay ndigalam jéem di ci def suñ koom kattan lépp lum ñu tere ñàkk koo def su fekkee def nañ loolu lépp lu ñu bëgg ci àddina ak alaxira danañu ko yàlla danañu ko may ci baax ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yal nañu yàlla dimbale ci loolu ci kaw loolu maa ngi wax ne <coughs> rëy yi rey yi rëy yi bari na rëy yi bari na ci Gambie ak Sénégal ak àddina bi yépp ñii rey bari nañ te liñ koy defee rek mooy seen bànneexu bakkan bànneexu bakkan li ko sabab nag mooy lii rek lenn la mooy rek ñàkk ànd ak sa xel te li lay tax ñàkk li tax nga ñàkk ànd ak sa xel yaa ko sababal sa bopp mooy sàngara drogue mandi commande loo xamante loo def lépp lu bon da ci mën a dugg foog ne da ci génne boo ci duggee das ca kon li war mooy alxuraan li mu ji atteew ñu koy attewoo moo ñu noppal fii waaye suñu nee su yàlla waxee ne koo xam ne dafa rey bakkan te tey ko ñu nañ ko rey ku rey nañ ko rey koo xam ne dafa tooñ sàcc alal nañu dog loxoom loolu atte yàlla la ñu ne nag réew yeeg yépp ne yàlla moom amul yërmande loolu moom musiba laaxi la yàlla moo ñu gën a yërëm sunu bopp ni ñu suñu bopp ni ñu yàlla yërëmee moo ëpp la liñ bëggal suñu bopp li ñu yàlla bëggal ci lu baax moo ëpp la li ñuy musloo ci lu bon li ñu yàlla bëggal di ñu di ko di ñu ko di ko ñu ko musal ci lu bon moo ëpp loola kon yoon bi mu tëral te mooy islaam ak alquran ñu jéem nañ ci jéem a aw suñ jéemee aw rek danañ am euh, texe tey ak texe ëllëg mooy lu baax la am fay tey mooy àddina ak ëllëg ñu am fa lu baax mooy àjjana déeg dem àjjana loolu su fekkee topp nañ ndigalam yi dinañ ko def waaye su fekkee nañ ne euh, li mu attexoo buñ ci attexoo ku rey euh, léegi moom ku rey moom kañ rey moom waxuñ ci moom dara waaye ñu ne nañ sàmmi ak ki nga xam ne moo rey ak fam loolu musiba naaru laay ki sax sax maanaam ki nga xam ne sàmmul sàmmul ak xam moom ak boppam ak yelleefam ba dugg ci rey nit kooka sànn ak xam ak yelleefam kon ki mu rey dañ ko war a rey ki mu rey rek rey rek dañ ko war a ay comme ni yàlla wax yonent dëgëral ko tey tamit attey islaam loolu la ku sàcc ñu dog loxoom attey islam la ñu ko sàcc ñu gis ku rëy nit ñu dëgal ko kasu xam ab diir rek mu génn di taxawaalu hmm? reer keneen wax nañ ku rey nit reerti rëy yi bari na lu ko def nag mooy dorog rek sàngara sàngara yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne mooy ummul is mooy ndey bon bon yi lépp lu nit di def ci lu bon sangara moo ko ciy xiir te xale yi ñi rey ñëpp kat ñi gën a bari fukkat ak nangam fukkat ak nangam fukkat ak nangam amul kenn ko ci am ñeent fukkat ak yooyu li gën a bari ñi rey ba tey it oto yaa ngi rey nit ñaa ngi rey góor ñaa ngi rey jigéen ñaa ngi rey ba kañ ba kañ mooy ñàkk jëfandikoo islaam ata islaam yàlla wax na ñu ne wa fil qalbi hayaatun yaa ulil albaabi bokk na ci ku rey ñu rey la ak dund ki nga xam ne dafa bëgg a rey nit xam ne su reyee ñu rey ko musal na kam bëgg a rey ba du ko rey te it musal na bopp mi xam ne su reyoon dañ koy rey moo tax yàlla waxam dafay feeñ dafay feeñ fu nekk te dëgg lay nekk te it buñ ko toppee rek lu baax la ñuy am fii ci àddina ak la ci àllaxira liñ war a wax kay mooy drogue bi drogue drogue drogue drogue bi pencam ndawi réew yi seen wari gar maa ngi leen di wax ne seen wari gar duul kontrante xasante ne maa ngi ci euh, sàmm suma loi lu ma neex def lu ma neex wax loolu duhul liñ leen sant mooy kenn ku nekk ci yéen ci ndawi réew mi da ngeen bàyyi ko ci gox gox bi ngeen bàyyi ko am na lu ñu bëgg am na lu ñu bëgg di ko laaj loolu ngeen war a ñaan di ko feeñal ci mbooloo mi bu ko defee gouvernement gouvernement bi dégg ko nguur gi dégg ko loolu mu dimbale leen ji waaye xasanteeg sàgg anteeg contrante loolu du defar réew loolu defar réew te yéeney euh, ndawi réew mi kon luy defar réew mi ngeen war a sàmm di ko di ci góorgóorlu di ci taxaw wax ci drogue bi wax ci mandi ki nga xam ne moom la xale yi mandi fu ñu tollu loolu ci ngeen war a wax waaye contreanteeg euh, sag anteeg ak tamit euh, lu nekk rek nit wax ko ci ne yaa ngi ci euh, droit sa sàmm sa loi loolu du noonu lu la neex wax du lu la neex def déedéet te mooy kenn ku nekk na sàmm ak yi nga xam ne moom la am noo koy sàmmee mooy bañ tooñ kenn kenn bañ la tooñ waaw buñ tooñante yonent bi al boppam alayhi salaatu boppam borom beeg boppam subhaanahu moo wax ne man inni haramtu sulma ala nafsi wa jahaltuhu muharraman baynakum falaata saalamoo mu ne man man yàlla man xaraamal naa tooñ ci sama bopp du tooñ kenn yàlla du tooñ kenn ma xaraamal ko ci seen diggante bu leen tooñante kon bu ñu tooñante kon nañ sàmm lii wax yi nañ ko sàmm tey wax yàlla nañ koy déglu te ko jëfandikoo tey tamit ñu am texe tey ak texe ëllëg lii lay dénk suma bopp ñu dégg ko déglu ko setantal ko drogue bi sàngara si nañ ko moytandiku xiir xale yi lii rek la lii rek la bi li gën mooy fa muy bàyyi ko xam ngeen ko ñi koy yore xam ngeen ko niñ koy toppatoo di ko indi ba mu nekk ñëw fii ci réew mi di ko jaay di ko sa tasa réew mi xam ngeen ko mooy tandiku leen ko loolu mooy yàq lépp drogue bi daal rey yu bari yépp drogue bi moo koy def mandi sàngara borom bi nee na yonent mi ne sallallahu alayhi wasallam umul xabaais lépp lu bon sàngara mooy ndeyam kon nañ ko moytandiku loolu daal moom laa ne danaa leen ko dénk wax leen ko ba ngeen dégg ko te it moytandiku ko bañ dégg ñun ñëpp moytandiku ko rawatina xal yi nga xam ne ñu ngi jàng demaguñ fenn ay fukket ak fukket dara fukket ak dara boo commencé loolu dinaan sàngara di dem iskul dinaan sàngara te boo dem iskul boo dem rek suñ génnee break dana am groupe boo xam ne ay groupe yoo xam ne dañuy taxaw dañ génn ca biti nekk ca lañ nekk nekk moo xam li ñuy naan moo xam li ñuy def lu baree baree bare loolu lañ loolu la ñuy def loolu nag ku ci nekk ba mandi boo demee mën nga rey sa yaay mën nga rey sa baay mën nga rey sa jabar mën nga rey sa sa doom mën nga ànd ak sa doom ci lu bon loolu lépp mandi moo koy def ngir ku mandi ku loo ne looy def ñu ñaan yàlla mu déggloo ñu topp loo ñu xam loo ñu liñ suñu wargar ñu def ko bi jaahi rasulillahi salawaatullahi wasalaamu alayhi maa ngi leen di wax ne euh, maa ngi taxaw fii di gën a wax leneen ci kanam insha allahu bismillah bismillah leneen li may wax mooy ne président bi mooy euh, Adama Baro dem na tukki ci mari Amérique fi nga xam ne mbooleem àddina bi seen président si ñu ngi fa daje di wecc ante xalaat pour jàmmi àddina bi mane ne waa Gambie ya nekk Amérique ne dañu génn pour di def manifeste pour wax ci président bi di ko kontoor wax la leen neex bëgg def lu leen neex ñi naan nit ñi bari nañ bari nañ bari nañ ñoom rusloo nañu ku am xel rek da nga xam ne waa Gambie rusloo rusloo nañu leen loolu nañu leen rusloo nañu leen lu tax islaam lu tooñ islaam yaa ngi xee yéen a ngi xeeblu Gàmbi ci biir mboolem réewi àddina bi ngir xas président am ki suufeel président am ki ko jiite ki ko suufeel ki nga ne yoon wi nga nekk du dëgg amul yoon jëmewula réew mi eh, eh, kanam te loolu da nga ko wax ci sa bànneexu bakkan loolu suufeelu la ko Gàmbi nga suufeel réew mi nga suufeel sa bopp nga suufeel ngir su fekkee ni réew mi niñ koy doxalee awul yoon nga di ko wax euh, tey te li nga wax xam nga ne nekkul dëgg kooku suufeelu la ko sa bopp ngay suufeel loolu wa moom lay wax ne yéen kay li ngeen waroon wax moo di ne nañ seet li baax ci réew yi ñu di ko def mooy lan mooy di ko dorog lépp lu bon sàngara moo ko yàq sàngara njaalo mbiram góor jigéen loolu mooy yàq àddina moo yàq bi sàngara sàngara laa wax de yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam kullu muskirin xamrun wa kullu xamrin haram lépp loo xam ne ku ko jëfandikoo man di sàngara la te bépp sàngara dafa haram ci ngeen waroon wax rey yu bari yi ci Gàmbi rey yu bari ci senegal rey yu bari ci àddina bi li ko sabab mooy sàngara loolu ci ngeen waroon wax waaye dem ba ci réew mi ci ñëpp fi fi ñu dajee ngeen di suufeel seen président di suufeel Gambie di suufeel seen bopp loolu du ngeen ci am ndam tey tamit yàlla du leen ci dimbale euh, yal na yàlla def jàmm ci àddina bi yépp saxal ko ci yaatal jàmm ñi saxal ko ci rawatina Sénégambia yaatal ko saxal ko ci rey yi bari na ci Gambia rey yi bari na ci Sénégal euh, ñiy rey oto yi rey nit ñi rey góor ñiy rey jigéen ñi rey loolu lépp li ko sabab mooy sàngara ak njaalo njaalo sàngara ak njaalo ak góor jigéen yooyu yëpp du yëfi jullit du yëfi nit ku baax yooyu yëpp du nit ku nit ku baax du yëfi koo xam ne dafay defar ki dorogee ba ba mbandi xamul fu mu nekk du defar réew defar dara du defar boppam lii yàq yépp loolu la kon ñu ñaan yàlla mu déggloo ñu toppaloo ñu teg li nga xam ne moom la yàlla santaane pour ñu def ko nañ jeexal ñu ngi ñaan yàlla ñu jeexal suñu kattan def loola lim ñu tere ñu nekk ko def loolu yàlla ci yàlla dimbale tey jàmm yal na yàlla def jàmm ci àddina bi ñi nga xam ne dañu nekk ci réew ak ci euh, Amérique di daje àddina bi yëpp dafa daje fa ak réew yi yëpp daje fa di wax jàmm jàmm jooju nañ sax ñaan jàll jàmm ji xew nekk ci àddina bi te tamit dimbalante yërëmante bëggante gannaaw xamante bëggante yërëmante dimbalante loolu lañu yàlla sant borom bi ne nañu wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwaani loolu la foofu laay am ci wax bi bu bëree itam ña mënul ñàkk a bëri ngir lii dafa jara wax waxkat yi bari nañu te ñi ñuy wax dëgg bariwuñu kon ñuy wax fen ñoo gën a bari kon ñuy wax dëgg bu ñu noppi bu ñu noppi nañ wax waxkat yi maanaam jëfkat yi bari nañ ñiy def lu baax ñoo gën a néew ñiy def lu bon ñiy def lu bon ñoo gën a bari ñiy def lu baax kon ñiy def lu baax bu ñu tayal bu ñu saggan fuñ toll nañu jéem di jëf lu baax yal na yàlla dimbali ci loolu yal na yàlla def loolu ci àddina bi jàmm sax fi jàmm am fi Sénégal rawatina Sénégambie yal na yàlla def loolu bi jaahi rasulillahi salawaatullahi wasalaamu alayhi seen mbokk la Omar Ibrahim Lay maa ngi leen di wax ne asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu